Euh, les analyses sont bonnes mais man damay génn feneen fu fu gars yi génn par rapport au PDS. parce que aussi élection yi dañoo dund loo xamante ni dafa dafa dafa grave. Hmm. un candidat accusé un autre candidat de corrupteur. waaw ah. issu du PDS. te mujjul fenn. c'est-à-dire aujourd'hui PDS dañu war a édifier par rapport a cette affaire la parce que suñu renvoyé élection yi c'est parce que dafa am accusation bu jógee PDS dem ci beneen candidat PDS dafa dem. Euh, dafa dem assemblée nationale ñu def loi pour repousser les élections donc situation bi nga xam ni moom la Sénégal nekkoon dans des crises moment élection yooyu c'est le PDS boo ko fi teg donc pour man PDS dafa am leçon yoo xamante am dafa am dafa am loo xamante ne daf ko war a leeral askanu Sénégal en tant que parti politique bi nga xam ne dafa amoon candidat bu tudd. Euh, Karim Wade Karim Wade c'est vrai il a dit ñoom am nañ. oui mm. da mais nest dañ dañ jëloon jëloon nañ seen mu dem pour mu dem li ma bëgg wax daal non xam nga problème bi mooy accusation baa ngi fi c'est plus la justice non moom la bi cest damay bañ affaire bi dem perte profit ndax li accusation yooyu am na wala amul parce que accusation yooyu dañu dañu perdre loo benn candidat mhm. dañ ko teg ci deru benn candidat ah. mu am lu mu joué par rapport ak beaucoup de situations parce que candidat boobu ba mu ko accuser rek amatul chance bu bari muy le candidat Amadou Ba donc li muy wax nii le PDS à travaillé pour la victoire de Bassirou Diomaye effectivement le PDS a travaillé pour la Bassirou Diomaye et pour la défaite d'Amadou Ba mhm. parce que accusation boobu moo moo wàññi lu bari sur le candidat Amadou mais accusation boobu warul dem perte profit c'est-à-dire c'est-à-dire warul nax saay mooy ñu bàyyi ko noonu pa nga xam ne ku mu neex rek xëy suba accuser beneen candidat parce que dañuy dem élection. Mm-hmm. parce que yaakaar naa ni. li ngay wax mooy dafa war a leer. dafa da comme li Sénégalais daf ñu ko war a leeral. Sénégalais yi war yi war a xam exactement est-ce que li Karim doon wax am na wala amul wala seen projet de loi boobu ñu àndoon ak Benno Bokk Yaakaar ba renvoyer les élections au au quinze est-ce que du woon deal bu am pour permettre Karim Wade mën a bokk. ok beneen question la. ñaari question ngi noonu. parce que seen taxawaay bi yëpp mooy dañu bañ a dañ ko tere candidature am. ñu jóg Karim Wade jóg accusé ñoom seen machine jóg nekk en branle dem pour repousser les élections ñu ànd ceeg la coalition Benno Bokk Yaakaar li ci gën a graaw mooy candidat Benno Bokk Yaakaar la ñu accusé woon mais les députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar jóg ànd ceeg yéen. ak la coalition Wallu. d'accord est-ce que du nu woon parce que ay laaj laay laaj ay lu may samp. Ah, est-ce que du woon. deal bu amoon diggante PDS ak la coalition Benno Bokk Yaakaar par exemple je dirais le président Macky Sall pour ñu repousser les élections mm-hmm. beneen biir ba ñu ba ñu ba conseil constitutionnel kase loolu parce que man ay laaj billaay dama yàkkamte woon lii <laughs> beneen biir ba ñu kasee décision bi ñu dem cour suprême waaw toujours ci dynamique ci logique repousser les élections pour permettre Karim Meïssa Wade bokk ci élections yi waaw bañ leen bañ leen daanee ki ñu jam baaraamu tuuma mooy président de la République Macky moom moo leen tere seen candidature. ok teggi nañ baaraamu tuuma bi ñu tegoon ci Amadou Ba teg ko ci président de la République Macky donc est-ce que li ñu doon diil dafa foiré walla parce est-ce que dil la yow tam Adama Fall mënoo ne est-ce que dil ba pare ne est-ce que dil ba pare ne est-ce que a a tontu sa bopp dama ne bu question yi du deal bu ñu doon teg pour permettre euh, de PDS ah, na ko téye parce que damay joxe analyse par rapport à la au PDS en tant que famille libérale doo bàyyi mu tontu ci ñaari question yooyu après nga ñëwaat gënul yomb nga ñëwaat ci kii famille libérale bi waaw Euh, deux questions yoo am importance la posé yu yi bëgg a xam. waa sénégalais yi moom. Mhm. xëy na moom dafa bëgg waxtaan bi neex rek. ah mais en vérité sénégalais yi xam nañ li xew. ah li xew lan la euh, ñun dañu gis ni on a cherché à évincer notre candidat. Mmh. par des méthodes injustes. parce que sunu candidat dafa indi leen neuf places <coughs> yi nga xamante ni moom la code électoral wax. en matière de présidence booy def candidat à la présidentielle. ñu gis kenn ku ñëw contester candidature Karim Wade sous prétexte que il n'est pas de nationalité exclusivement sénégalaise. ñëpp yéen dund épisode boobu. alors ñun ñu fournir le décret français actant que Karim et est effectivement de nationalité sénégalaise. mm que perd na ses liens avec la France mu fournir que le 16 la le lendemain bi nga xamante ni contestataire bi déposé na kayit bi mu contesté le 20 de ce même mois conseil constitutionnel détenteur de la légitimité pour répondre à cet acte là mhm. yor le décret français qui prouve que Karim Wade plus français mais il est de nationalité exclusivement sénégalaise moom mu bañ nangu candidature Karim Wade ñu ne yow itam nous sommes un grand parti nous avons géré le temps pendant douze ans toutes les procédures yi nga xamante ni day dox au niveau de la justice et au niveau de l'administration dañ ko am parce que nag nous étions là nous étions là-dedans bi ñu defee suñu nemmeeku suñu gëstu bopp ñu gis ne effectivement il y a eu de vin ah ah et nous avons instruit notre groupe parlementaire dafa ndànk rek dama laa déglu defal ndànk rek Sénégal yi ñu ngi déglu. non non non dama bëgg mu leer dafa ndànk rek daal mooy guerre bokk. dañoo guerre mooy guerre bokk mooy juge yi. xam dama la guerre leeral ah. dem li Pod 20 mooy guerre bokk. ok ñun dañ ko assumer. ok duñ ko assumer. ok duñ ko assumer ñu instruire le groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais. ñu def une euh, enquête commission d' enquête parlementaire. waaw laquelle commission d' droit moo ñu ko may réglementaire assemblée moo ñu ko may bi ñu ko tabee ba commencé fonctionner dégg nga alors la justice s'est autosaisie cette cette question la donc mu anéantir procédure continuation wu commission d'enquête parlementaire boobu parce que loolu la loi bi wax léegi kay leeral bi ngay laaj mooy il appartient maintenant au juge d'instruction commis pour éclaircir les sénégal de cette question la moom moo ci des nos convoqués les personnes concernées nous convoquer les personnes concernées xam na ko bu ko defee. Hmm. mu leer nañ c' est comme ça c' est ça la procédure te ñun code pénal daf ñu interdire génne les preuves ou ou kudul au niveau de la commission d' enquête parlementaire. Hmm. c' est le code pénal qui nous l' ah bu ñu ko defee c' est une infraction ma xamal la ko tey <laughs> non ma xam ne je parle de loi Sénégal yaa ñu déglu. je sais je ah sais ah waaw kon nag mu wax le code pénal moo ñu interdire ñun. ñu koy génne dans la rue wala sur les yooyu. kon da nga bëgg wax askan wi Sénégal dafa am ngeen ay preuves yoo xamante la. suñu ay preuves ñun. waaw loi moo ñu permettre ñu joxe lu dul devant la commission d'enquête parlementaire feneen fu ñu ko joxee rek def nañu erreur. ok te nous de sanction. ok kon def. kon Sénégal yi nañu ab daal xaar ba ñi nga xamante ni yóbbu nañu affaire yi au niveau de la justice ñoom ñu clarifier situation bi. Mhm. mais loolu rek et yow yaa ngi naan diil diil waaw xanaa ñun bu ñu doon deal ak Macky Sall wala ñu deal ak Amadou Sall xanaa ko doon jàppale ko ci élection yi. non waxuma Amadou Sall non non non non. benn bu fois benn la Amadou Sall bu nekkee Amadou Ba bu nekkee premier ministre kay mais il est pour et pour le compte de de Macky Sall président de la République quand même sans lui il ne serait pas. donc c'était pas un deal sans lui il sans mais quand même non dañu faa font rek. dil dilo la. non damay laaj rek non mais lu ñu dil man am Macky Sall dañuy dil ak moom. amul lu ñu dil ak moom. Amadou Ba amul lu ñu dil ak moom encore encore une fois Amadou Ba. encore une fois Amadou je te le dis si tu ne le savais pas il était sous notre responsabilité. kii hmm. Amadou Ba hmm. président Abdoulaye Wade moo moo jël décret nommé ko directeur général des impôts et domaines. nga xam loolu boo ko xamul woon. muy hmm. benn ñaare ba il était dans dans dans dans dans la GC. oui génération du génération du concret. il était sous la responsabilité et sous sous sous le patronage n'est-ce pas de Karim ma xam loolu boo ko xamul woon. donc c'est pour dire véritablement moom moo am kersa tey jàkkaloo ak ñun waaye ñun am ñu kersa jàkkaloo ak moom. Mm-hmm. c'est ça la réalité. loolu tamit il est important comme da nga bëgg Sénégal yi xam Sénégal te war nañu mën a xamaale loolu. loolu laa ci jublu woon. ah donc donc loolu loolu mooy problème bi beneen question bi lan la woon. ñaar ñaar yooyu. ñaar yooyu la